billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ziyaara kalifa yi nga xamante ne kalifa diine yi ak kalifa aada yi di ñaanal suñ kalifa yi nga xam ne ñoo jiitu ñi fi des itam ñu ñaan leen yàlla may leen fan gu gudd may leen itam kàttan lu ñu mën a joxe responsabilité yi nekk ci ñoom tey nag damay wax ci turu ñetti kasket benn bi damay wax que citoyen deuxième bi damay wax que chef religieux troisième bi damay wax que acteur politique boo xamante ne mi ngi yëngatu ci politique di yëngatu ci coalition di yëngatu aussi pour que démocratie bi avancé man Cheikh Ibrahima Diallo maa ngi waxee fii ci Medina Baye di ñaanal sa réew mi yëpp jàmm di ko ñaanal àddina bi di wax ne jamono day toll foo xamante ne su wax jotee nga noppi ëllëg di su événement boo xamante ne neexul nit ñi amee su boobaa yow am nga ci part de responsabilité ndax rod na ci xadis mu ñu jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa ne jullit bi am na ñetti ba su gisee mbir moo xamante ne jaaxal na ko wala mbir moo xamante ne daf ko sib benn bi mu dénoncé ko ak làmmiñam wala mu delloosi ko ak doole bu fekkee mën na ko su ko mënut mu delloosi ko ak làmmiñam su mënul delloosi ko mu def ko ci xolam mu di ko métti feeg ba yàlla di teggee mbir moomu hmm, Sénégal nag dafa mel ni acteur politique yi voie bi ñu jaar ñu bëri ci ñoom dañ koo comprendre démocratie lañ teg ci réew mi ne ci lañ jaar pour mën a àgg ci nguur yàlla def na itam am na ñoo xam ne mën nañoo jël ci ñoom exemple jaar nañ ci démocratie boobu respecté ko ba àgg ci nguur mën nañ ci cité ab lay wàdd mën nañ ci cité itam Macky Sall parce que ci démocratie la jaar Sénégal yi wateel ko mu tàgg mu toog bon am nañ ñaar ñoo xam ne mën nañoo gëm ne ñoom respecté woon nañ démocratie ba agsi fi ñu agsi mooy revenir di fàttali nit ñi ne doole ju la yàlla mënti jox koo mënti doon ci senegal dama lay fàttali rek war ne mënoo àgg ci nguur lu mooy dangaa jaar ci waa normal wate gañe nit ñi installé la institution yi garanti la fekk bëgg la diit bi nga xam ne moom la la constitution bi may jeex sa moroom ñëw remplacer la ba tax na bon képp koo xamante ne dangaa jaar bëgg a jaar yoon woo xamante ne dafa uteeg woowu yoon mooy dafa mel dangaa bëgg a jalgati démocratie bi dangaa bëgg a jal jalgati aussi institution bi euh, te institution bi bi ñu ko euh, euh, constitution bi ñu ko taxawalee itam dañoo ut lu ko gaar garanti état moo ko garanti di ko sàmm ndax ci la jàmm réew mi nekk jamono nag dafay dox dox na ba nga xamante ne mën naa toog nii sama kër rek sama poche fees ma génn ne man candidat la damaa bëgg a nekk président de la république musuma politique xaw ma sax luy politique xaw ma sax luy démocratie waaye nag euh, euh, euh, jamono pousse na ma am naa possibilité bi pour ma nekk candidat ma nekk candidat danay am dana am ñoo xam itam aussi yàlla jamono mën na leen a neexee ñu nekk ñoo xamante ne am nañ xabul ci nit ñi ñu wax ci seen biir wax ci lañ demee ba loolu poussé leen ñu ne dañu nekk ay politiciens am nañ ci droit waaye nag politique itam dafa am fu mu jaar politique ñi koy def ñëpp pour fexe ba jàmm am nit ñi dundi jàmm looluy politique politique su ci ay raxee fitna rax ci seytaane rax ci doo tudd politique kooku rajaxe la tudd tarajaxe nag jugul kenn jugul doom yi jugul mag ñi jugul acteur politique yi parce que politique moom ci jàmm rek la xaj ngay wax ma di la déglu soo paree ba tontu la nga di ma déglu suñ demee ba ak ci loo xamante ne mënuñ koo ñàkk a euh, euh, ñu pencoo ko ñu def compromis su loolu génnee nag lu may bëgg a def forcing mooy ne tey jii ñi nga ñi nga bëgg a def xam be def matt ay doomi jàmbur lañ doomi jàmbur yooyu alxuraan daf ñoo waxoon démb te alxuraan waxi démbam mooy waxi tey yàlla waxoon na ci alxuraan ne laa ilaha illa hu alayhi falyatawakkalul mu'minun waaye daf ca aaya ba soo demee demee ba ca kanam dafa ñëw indi am na lenn ci seen njaboot yi seen i noonu lañ am na lenn ci seen njaboot yi seen fitna lañ loolu mooy continuer jamono bañ agsi fii njaboot googu nag ak kalifa yooyu ñoom laay waxat su bëggee jàmm ci réew mii nañ respecté xale yi nañ respecté mag ñi mag ñi nañ yërëm xale yi su loolu amee fitna mënu fi am que réew mi dafa am ay institutions yoo xam ne dañoo dëgër ñoo taxaw di sàmm lépp tey jii su la neexee nga ne man damaa bëgg a créer parti soo demee sénégalais nga soo remplir euh, lii les conditions yi ñu jox la parti loolu lu luñ ci jublu mooy ne sénégalais bu ne am na droit briguer euh, euh, suffrage universel ndax constitution bi moo ko may mais ça ne veut pas dire que nag aussi ah am na yenn caractère ak yenn nit ñoo xamante ne su leen ko su leen ko Sénégal mayee itam ñoom ni ko bëgg a jëfandikoo dafay lor askan wi. lépp lu mu bëgg a def firnu laa ko bëgg a defee te du ma te eh, yaa ngi denc say doom làkk leen yóbbu leen ci ay école yu gën a mag denc leen te doomi jàmbur yi da nga yaakaar pour defee defee ko moo tax ñu war a seet yëf yi man jeunesse bi laay waxaat ak parent yi dale ko ci sama bopp di wax ne doom yi dama cee am ni ci ñeneen amee ni ci keneen amee ni ci ñeneen amee man dey sama papa ba ma juddoo daf ma jàngal alxuraan yóbbu ma ci laa ja ba ma pare ci alxuraan jooju ma mathématique dugg école jàng ba jot samay diplôme bi ma ñëwee ma liggéey ba tey ji dem naa retraite ba tey ji fonde naa sama parti bopp waaye li ma xamaloon mooy ne fu jàmm nekk jàmm fa gën fu jàmm nekkut ba fu indi ay loolu ma jàngaloon te loolu ci laa nekk samay doom itam ci loolu la yoon woowu laa leen teg ku ci respecté fa lillahi koo ko ci respecté tam gaal gi moom su bëggee su këppoo ñëppay suux ba nag nuñ nuñ def ba gaal gi bañ a këpp moo ëpp njëriñ que nuñ def ba gaal gi këpp ñi joxe ay dat ne dat yooyu dañu yëngal réew mi seen bopp la ñuy yëngal nañu arrêté buñ doom jël doomu yàmb jàmbur yi di leen def matt di leen toggee seen añ yi Sénégal soxla loolu Sénégal plus la soxla président Macky Sall tey jii su jeexaloon tey jii itam ne bu soxlaatuma nguur am na fi woy woy yu mooy lan lépp lu mu fekkoon yokk na ko ci diit bu gàtt fekkee eh, jàngukaay la yokk na jàngukaay yi fekkente ne ay eh, eh, infrastructure la yokk na infrastructure yi su fekkente ne ci wàllu santé la yokk na sante bi dem na ba nga xamante ne mag mu ne fi muy dèjà dootoo fay dootoo dootoo dootoo fay pour faju yokk dispensaires yi yokk hôpitaux yi tey jii ñi ngi am ci hôpitaux yi gën a fort ci Kaffrine gi rek am na cinquième catégorie boo fa nekk boo xamante ne hôpital moderne lépp nga fa ak yeneen ak Kédougou feneen feneen feneen feneen feneen waxuñ la capital régional yi nga xam ne ñoom bu njëkk amoon nañ seen hôpitaux ba pare ak liñ lañ ci yokkal kooku am na woy ba pare te it lañ amul foofu fexe na ba lim fi fekkoon muy mbell mu fexe bañ génne ko tey deux mille vingt trois jii nii Sénégal dana jaay pétrole dana jaay gaz su boobaa coono yu bëri dana wàññeeku bon lu fi taal na jaru ko maa ngi rappeler les acteurs politiques que démocratie bi ñu taajal démocratie gënu ko ñoo fi gën fichier électoral kenn mënu koo sàcc nañ góorgóorlu ba respecté loolu élection yi 2024 la des na ñu ngi def révision liste électoraux yi élector euh, euh, euh, liste électorale yi nañ góorgóorlu ba nga xamante ne xale yi nga xamante ne primo votant lañ ñu dem réinscrire ba fexe ba bokk ci wote yu ñëw loolu seen droit absolu la Sénégal itam ba léegi tànn bu la neex la waaye nag nit ñi am nañ droit xam ne xam ne kuy tànn na tànn jàmm président Macky Sall day liñ ko xamal ñun mooy ne bu ñëwee ba léegi nit ñi jàmmul ci lañu nekk ñi ñaa ngi fay ak sol ñaa ngi liggéey ñaa ngi tukki ñaa ngi tabax képp koo xamante ne jàddoo yoon amuta yow affaire ku jàdd yoon nag du moom institution yi fi taaj la te moom gardien bi rek la bon nañ fexe ñu ñëpp ñu jaar ci yoon jaar ci nag mooy lan mooy ñu respecté li nga xamante ne moom la réew mi tëral ki bëgg a manifester suñ la joxee euh, nu ñu koy waxeeti suñ la bàyyee yoon garde la euh, manifester su fekkee amuñu amoo yoon muñ laa garde parce que réew mi moo laaj fi mu ni jàmm ak dal suñ la waxee taxawal taxawal di wax yi na ngeen toog ci seen kër ndey ak seen kër baay yi ngeen sàmm. xale bi su demee ba nga xam ne mooy tudd indi dépasse waaye bëgg a indi fitna lor ndeyam lor baayam su boobaa loolu leneen a ko gën bon maa ngi ñaan ci barke sëriñ bi muy Cheikh Ibrahima Niass Kaolack ak naataangoom yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ñi ne ci kaw ak ñu ne ci biir suuf te seen biir taxut seen rox yaa ngi dund ñu ngi def li ñu war war a def ci jaam yi di tëbbu ci ñoom di tëbbu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom la ñu wàccee alxuraan te moo ñu indil diine ji moo tax ñëpp nekk ay sang di wax ne senegal gii yàlla nga fi saxal jàmm lépp lu lor a lor nit ñi fii ci réew mi nag ñu ko seppil comme ni ngay seppee lu bon sànni ko nag ñu ko seppee noonu ku fi bëgg jàmm yàlla na la yàlla may jàmm te yàlla na la ko yàlla defal euh, élection yi ñëw ki bëgg doo candidat mu kum mën ci doon nañ ko def ci jàmm man nag awma lu may nëbbu dama am candidat mooy de président Macky mooy sama candidat su ko yàlla defee moom mu bëgg doo candidat ah maa ngi ci gannaawam dinaa ko jàppale ci li ma mën ba yàlla jox ko li nga xam ne moom la soxla jig na Sénégal nag moom day xam naa ne soxlaata waaye ñun soxla nañ ko parce que li tax ñu soxla ko mooy lim ñu defal keroog ba mu duggee ci réew mi ci la bekkoor gëj réew maa ngi taw kenn mës a gis at boo xamante ne ñu ne Sénégal tawut amut te ñi ko romboon ñooñu ci bekkoon lañu la ñu bàyyoon bi ñu dem yàlla def na itam bi mu ñëwee mbel yi noonu ci biir suuf suuf génnee na ko loolu chance la xale yi nga xam ne dara bëgguñ lu may sport jiit nga leen ñu ngi rapport coupe yi di ñëw du benn du ñaar du ñett du ñeent du jub jigéen ñi du jugóor ñi bon a ah, li ci des lan la nit ñaa ngi lekk nit ñaa ngi naan kenn xiiful baykat yi biñ bayee ñi ngi jaay seen gerte seen gerte yi ñi ngi jaay seen euh, kii di wàcce ci seen soxla yi lu fi des jàmm ngi ne ñooy su la neexee nga déparé fii ba wulu koro kenn du la laal nga dem ci jàmm ñëw ci jàmm loolu lañ soxla ci réew euh, li nekk nag ci ci suñ frontières yi di baax gis nañ ko seen population yi newuñ ci jàmm ñun jàmm ji ñu yàlla jox buñ ko yàq te yàq gi mooy ñu jalgati yoon te yoon ku ko jalgati yoon naa dal ci sa kaw nag xale yi xam leen seen bopp nga yërëm seen bopp yërëm seen wàjjur yi ñu leen di oo ci fitna ñu ngi denc seen doom yi du leen ak seen jabar yi buñ leen utilise def leen mat bon nag wax ju jot a gudd maa ngi ñaanal ñëpp di ñaanal waa Kaolack nga yàlla fi yàlla def jàmm yàlla ju yàlla jubale kilifa politique yi fi nekk ba li nga xam ne moom lañ soxla ci ñoom ñu mën koo goreel di ñaanal population bi jàmm yàlla nañ jubóog seeni kilifa yàlla fi yàlla def jàmm suñu xalifa Cheikh Mahi Ibrahim Niass maa ngi koy ñaanal wér ñaanal ko fan bu gudd ñaanal ko projet yi eh, nga xamante ne moom la sëmb yàlla na ko ci yàlla defal tawfiq suñu mbokk di suñ imaam di suñ karit muy al imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé ñu ngi koy ñaanal yàlla delloo ko ci jàmm mu dellusi ci jàmm fekk ñu ci jàmm fëgg yaramam lépp lu ci nekkoon ci tooke wala feebar yàlla fëgg ko génne ko. mu ñëw ci jàmm fekk ñu ci jàmm yàlla may ko fan wu gudd gudd yàlla yàlla yokkut naataanga ci réew mi pétrole bii di génn yàlla na ko Sénégal jëriñoo yàlla bu mu nekk fitna ci suñ kaw bi jaay sayyidina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim subhana rabbika rabbil izzati alamin